Alwafa TV donc ñu ngi leen di nuyu comme nuñ koy defee saa su yéen a ngi si dans l' émission xoole artiste avec Mbaye Prési donc tey nag ñu ngi fii nii seet si benn artiste boo xam ne benn big artist boo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi def la fierté euh, de la jeunesse sénégalaise donc ñu koy wax Ngaaka Blindé ñu ñëw seet si woon ko pour préparation big événement bi mu préparé mooy concert bi muy def fële na le si arena national bi donc ñu ñëw seet si ko donc ñu bàyyi ko mu nuyoog ak yéen. maa di len baalu ak tamit si korité bi ñu génn di baalu ak tamit sénégalais yëpp ak euh, internet yi nga xamanteni tout temps ñi ngi suivre plateforme bi ci lépp lu fi xew fooy nekk maa lay nuyu di ñaan yàlla jàmm sax Sénégal ñaan yàlla defal def fi jàmm ju sax def fi xéwal ak sutura gu gu sax gu sax dàq quoi donc euh, voilà ko Blindé la maa ngi Senegal, Sénégal aussi sama town sama fi ma jóge ak li ma def je doon muy mon je première question je vais pas revenir si le vidéo film bi mais sama première question par rapport ak tolof tolof yi mhm. euh, de de TV yow expérience nga côté nit ñi ak ci côté li nga dund waaw expérience bon expérience bu yaatu bu yaatu bu yaatu parce que li may faral di wax rek sa à ndaw boo tollee des fois ci ci ci sa ci sa diggu doole comme ni ñu koy waxee affaire yàlla am ay affaire yoo xam ne dam daf la ci daf la ci suturaal lu bëree bëri da ngay foog ne sax yow matale nga ko fekk bëri na si sa àdduna loo xamante ni xamagoo ko donc genre situation yi nga xamante ni dafa mel comme circonstances yi passé yi daf lay gën a wan sa bopp da lay gën a da gën a xamal yaay kan gën la xamal aussi sa yoon gën la xamal tamit say nit parce que bon tey Sénégal bi ñu nekk waxuma la sax nit ku egg fenn mais nit ku dul dara sax jafe na pour nga ràññee sa ay nit waxuma la ak nit koo xamante ni dem nga ba am benn tur tey ci réew mi ku nekk ngay gis ku nekkay daw ñëw ci yow ku nekkay nekk sa wet ñii di la wax dëgg ñi la dul wax dëgg yëpp mën nga leen bañ a ràññee mais balaa ngay xam c'est c'est ay nit dëggantaan nga nek ci genre circonstance yu mel et daf ma permettre à ce que ma gën xam man maay kan gëna xam tamit lan lay représenter parce que avant problème bi day am dama koy wax souvent xalaatuma won que egg naa fii sénégalais mais bi problème bi amé ci ngay soog comprendre que ndekete li nga doon def sax amana joxoko won ben valeur bi nonou ndekete sénégalais amna am ko tek ndekete li ngay def am na ay mag wala am na ay kilifa yi nga xamante ni ñu ngi seen rëkku woowu ñu la téléphone ñëwuñu si ay conseil defuñu dara wante li nga doon def ñu ngi ko doon yëg moo xamante ni problème bi amee da gis sénégalais yëpp doon ñëpp doon ñaan ñëpp ko doon métitlu ñi mën ñaan di ñaan ñi mën jooy di jooy ñi mën wàcc ci ci ci ci ci média yi wàcc si média yi ñaan njekki et tout après loolu dafa lay gën a permettre nga xam carrément que yow nekkatoo benn simple nit bu nekk ci ci ci ci town bi rek di dox quoi war nga xam bu baax a baax fooy teg sa tànk war nga xam bu baax a baax fooy dugg ci luy dugg xam tamit ñan ngay àndal bañ loolu dalati la parce que bu la dalee peut-être yow yaa ciy gën a yaa yaa koy dund mais am na nit ñi nga xamante ni sont des personnes de l'extérieur ñoom ñooy gën a méttitlu carrément problème boobu noonu quoi donc expérience bi nga xamante ni jëlee naa ko ci circonstance boobu vraiment c'est énorme loolu kese mun naa ne mën na jël émission wu lëmb comme xam nga mais ci tënk jàngal na ma xamal na ma et puis ma éveillé na ma aussi ci àdduna ci lu bëree bëri daal. ok nga génn na xam jaar si ay tolof tolof mu génnee ci tuk au xam ne indi bëri ñëpp naan nga ko dafa génn euh. waaw waaw waaw loolu moom. Euh, dama naan sant yàlla rek quoi li tax ma naan sant yàlla mooy peut-être yaa ngi def loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel et puis booy parce que genre peut-être am na nit ñi nga xamante ni def nañ amaan ay vidéo yu mel noonu wala def nañ ay clip wala def nañu ay image yoo xamante ni xaw na jege loolu te amul benn polémique mais peut-être bu ko Ngaaka Blindé defee c'est dafay montrer que ni nit ñi ñu ngi bàyyi xel ci ci li may def Et musique, surtout hip-hop, quoi. C'est la seule musique, je peux dire, hein, qui parle de tout et de rien. Et Amoul, sujet tabou amul loo xam dañ naan lii hip hop du si wax hip hop mun na wax ci ci ci ci ci mbedd hip hop mun na wax ci ci luxe hip hop mun na wax géejawaay mun na wax almadi hip hop mun na wax ci diine mun na wax ci alxuraan hip hop mun na wax ci lépp quoi parce que musique la boo xamante ni dafay élever pour les conscientiser et si musique est non peut-être créer coow li ko parce que genre li am moy nga ko génne na si si si si bi nan la mëna ci bi di tuk au tak né woy day stade bo bari na ay promoteur yu ko mënu di def ay clip wala di di voyager wala etc etc peut-être si question yooyu non le sénégalais di poser pour dire que ni amna lu nekk si comme par exemple hein? affirmation comme par exemple <laughs> non amul amul c'est-à-dire. non moi li may li may euh, dog di wax ni damay def musique en fait quand bo waxee affirmation motax parce que dama comprendre carrément si bon sens ngay la mais musique bi texte bi boko ko du début à la fin da ngay gis ni texte la nit ñi dama en fait en fait rappeler waat nit ñi que aduna bi jeex na ba comprendre nga mais ci aduna bi am noonu laa ko mun waxee benn organisation boo xamante ni affaire dañu accaparer àdduna bi ba tey ñëpp mun nañu ñoom ñoo ëpp doole ci ci ci ci ci ci àdduna bi léegi bi may def musique bi nga xamante ni parce que booy déglu son bi ci ci bëri na ay parties yu ma naan dundu leen mel ni axir dundu leen ni axiru zamaan ñëwagul xam nga genre fii ku nekk xam nga sa bopp ku nekk bëgg a nëbb li gën a bon ci sa bopp am na fu may waxee lu tax li yàlla wax ci alxuraan li bëri ci àdduna bi duñ ko farataal man lu ma waaye def mun naa ko baal tey jéggalu ñëpp barke Cheikh Fall en fait paroles yooyu noonu munul nekk ay paroles yoo xamante ni dafay dafay dafa dafa satanique quoi mais ci monde wala ci ci ci ci public non laa ko mun waxee wala ci environnement bi nga xamanteni mo moo sama cible ci ci message bobu environnement satanique bi le quoi comprendre nga c'est-à-dire ñi nga xamanteni dañu nekk ay nit nekk ay bon mun nañ nekk julit am gëm-gëm ba paré bañ doomu adama ba paré yéene doomu adama lu bon nekk ci aduna bi ñoom lu ñu xam mooy nañu am nañu riche et puis lu mu leen jaral nañ ko def ci monde bobu ñu nekk bobu la leen fekk si c'est-à-dire moy dama wax souvent su fekkee dama bëgg jàllale benn message ci nit ñi nga xamante ni par exemple na ma yàlla baal dañuy dañuy dañuy naan sàngara su ma leen bëggee éveiller foog ma dem ci baar bi comme xam nga genre du ne damay wax ñi naan sàngara ñu bàyyi naan sàngara ba pare dem si jumaa ji di ko wax quoi dama préféré woon dem carrément ci ñoom seen seen seen environnement exactement véhiculer sama message et puis je pense que réussir naa loolu quoi ndaxte bëri na nit ñoo xam ne bu ñu gisee ay signes sataniques wala affaire demee noonu rek dañuy bëgg découvrir carrément lan moo fa nekk

commentaires à chaque fois les fans de Dip ñoom ñooy ñëw di commentaire foofu si au tout autant côté aussi si si côté dit aussi les fans de Ngaka ñoo ko ci donc yow rivalité boobu est-ce que yaa ngi koy comment tu le vis wala gis nga quoi parce que on sent ça par rapport à à ces yéen ces seen fans ouais c'est-à-dire le public bi le quoi ah, du du du. bon maa koy ou wala marqué koy bañ mais le public bi le quoi mais man. du sax tey quoi yàgg naa wax ci je pense ci ay aka de New King benn sound bu yàgg di wax may Jay-Z maay Fumalaat maay Simon maay Alien Zik maay Canabasse maay et cetera et cetera cest yàlla dimbali na ma alhamdulilah ba ma mën def en fait ay différentes facettes de de de de rap wala de musique quoi man yàlla di en à chaque fois su ma ñëwee ci ben ci ben ci ben son suma ma ci benen nit yi dañuy gis ni carrément am ben différence quoi bo xamanteni amna ci musique bi jall ak musique bi souvent damay surprendre nit ñi ci ci ci yooyu quoi peut-être euh, bi may soog a génn si jeel bi si stylu sound bi nga xamanteni mo ñëkke njëkk génn muy bii game bi muy génn nit ñi xaaru xaaruñu won bii game génn quoi et c'est des tonalités yo xamanteni souvent man amna facilité pour rap si donc juste pour dire que ni man. bon ku mu neex nga ne ah man artiste bi mooy sama artiste kii laa àndal waa Géejawaay ne ngaa ko blende waa beneen secteur ne man kii laa àndal et tout loolu kenn bañu ko quoi mais man du waxuma la sax ay ay benn artiste quoi mais si underground ba ñu grand yi nga xamante ne ay mag la ñëpp laa jox cër mais leer na ma yàlla lu ñëpp di def mun naa ko def te mun naa man li may def. Je ne kenn ko def mais gisaguma quoi donc du nekk ay affaire rivalité wala ay genre affaire de quoi mais man maa sama yoon di ko tracé am public bu large boo xam ne ngi ma siy suivre keneen ku nekk tamit droit chemin pour def mais après nag bu fekkee am ay pic wala parce que si hip hop la bokk duñ ko bañ am nga droit artiste nekk genre niveau nga sànni ko ay pour kii après kooku am na droit tontu la am na droit croiser ay braam et cetera lu mun a wax du woon benn artiste kese mais bëri na ay artistes yi nga xamante ni yàgg nañ def ay pic di ko sànni ngaa ko blende et puis damay mel ni dégguma ko te dama ko doon dégg quoi mais en un temps donné nee naa nag genre nekkatuma benn boo xam ne damay wax wéy ngaa ko jàmm ji wala non jàmm ji dama koy dund ak ñi nga xam ne soxla nañ ko mais koo xamante ni en fait da ma wow leneen ci lu dul jàmm en fait dama la siy fekk si quoi parce que je pense qu'il faut foofu la donc nga avons nga donc ngi préparé un big événement pour xam sa combat lay ce sur scène Nous avons préparé un war ko fait au niveau de l'arène nationale Donc, il y a beaucoup de personnes qui ils ont dit que nous ngeen dit ñu ngaa pourquoi arène nationale bi lu tax def ko Amadou Barry nga faut que nous nous jëmmal géejawaay tey day prôné moom mooy roi wu Guédiawaye pour lan ñëwul sàmp ko foofu mu dem arena waaw loolu loolu en fait je pense que si c'est une question pertinente et man nekkatul artiste Guédiawaye kese bi Sénégal yëpp aussi gis seen bopp donc bëgg naa su may def benn événement ma def ko foo xamante ni carrément dina nekk si seen biir fief parce que tey fu mu nekk entre Pikine la ak Guédiawaye donc foofu aussi sama sama. seet la quoi sama base la te problème bi jàll tamit ñëpp koy méttitlu mais mënul métti ba gën a métti ñi nga xamante ni seen kanam nga juddoo fi nga raamee ñu xam la nga nekk si benn affaire di ko jaayante ñu ñëw yokk doole supporter la waaw ba benn moment problème yi am daf leen di métti ba bu fekkee ñëpp la doon métti quoi donc arène national bi dama ko jël pour inno innover pour wane ni carrément que faisabilité yi mu ngi fii que loo xamante ni tey su ma ko defee incha allah rabi réussir ko dinañ ne histoire du ko daf ko day marqué day marqué l'histoire quoi parce que on dira que ni amul Ngaaka Blindé mooy artiste bu njëkk bu tëgg arène nationale que si hip hop que ci mbalax donc challenge boobu laa ci bëggoon relever te gis nañu tamit même bu fekkee nii bon.

côté sécuritaire si kaw foofu loo leen ci mën a wax ak sa staff lan ngeen ciy travailler quoi pour waaw waaw loolu moom incha allah rabbi na ci ci xelu Sénégal yëpp daal parce que déjà police mi ngi ci biir gendarmerie aussi mi ngi ci biir sapeur pompier mi ngi ci biir te même waxuma sax jour événement bi mais bu événement bi xawee jege si rek jege si na sax ba pare mais dinañ gis en fait. voilà quoi dispositif bi nga xamanteni ni nek ci stade bi pour pour sécurité publique bi nga xamné dañ fay ñëw parce que bon gis nañ carrément que public bi wala jeunesse bi wala population bi am nañ engouement ci événement bi des ce yow balaa ngay juk di dem sax ay autorités ñoo lay woo ne defal defal nga parce que il faut stade bi am sécurité bu doy parce que xam nañ ci ci ci ci voilà environnement bi mu quoi donc ci loolu moom na ci xelu ñëpp dal dina am euh, sécurité bu doy dina am police dina ñëw assurer sécurité bi gendarmerie aussi dina ñëw assurer sécurité ainsi que la ça pompier ak voilà quoi gros braille inshallah incha sécurité bi man bok sama xel déjà dans na si te bu événement bi djégé amna affaire ñuy wacc yo sénégalais dinañ gis carrément en fait euh, ampleur bi nga xamanteni événement bi ko ak euh, sécurité bi nga xamanteni nañ ko événement bi di ñëw sax dinañ ay affaire quoi. <laughs> waaw hein? waaw yombul yombul yombul mais. déjà déjà déjà man suma ma <laughs> non waaw d'accord déjà déjà li may neexee ma ni histoire hip hop ba muy am ba léegi musul am comeback bu gën a show comeback bu Ngaaka Blindé déjà te eggaguñ ci événement bi quoi comme xam nga musul amul benn artiste boo xamante bu gën a am niveau bu comeback Ngaaka Blindé déjà et ci jour spectacle bi tamit peut-être mënuma ci wax lépp parce que am na affaire yoo xamante ne ay surprise la quoi mais comme li nga wax nii léegi man waxuma spectacle du ma ko def pour public yu bëgg mais man su may def su may def concert damay xamante ni man sama wàllu bopp damay kontaan quoi parce que man dama bëgg seen xam nga dama bëgg seen tey ngaa ko mun nañ koo waxool lu nekk wala mun nañ wax lu nekk mais en fait ku ku ku nangu rek quoi di nga xamné genre amul ben artiste buñ koy buñu mëna natable ak nga ko Ngaaka sur scène man dama bëgg spectacle te comme li nga wax légui preuve bi ci ci ci ci ci grand théâtre et cette fois-ci bëgg nañ aussi niveau bi gëna a ay instant bi amna ay ponkal yi nga xamante ni ñu ngi ci liggéey ku melni ay Bijou ngone xam nga voilà quoi ñom lem gars staff bi ñi ngi nekk di ci di ci di ci liggéey lu am solo te euh, comme li ñu wax dañu bëgg événement bi wuyu turam comme li wax événement national événement international bëgg nañ dëkk foo xamante li en fait ci artiste français yi wala ci artiste américain avons ñu en termes de spectacle exposé ko côté du Sénégal ñu avons carrément talent bi mi ngi parce que les techniciens sont là, ñu ngi fi gars yi ñu fi mais lu des rek ñu am ay ñu am possibilités wala ñu am ay opportunités yoo nous ne saisir

bëgg nañ 15 heures ñu ubbi stade bi quoi inshallah allah rabbi le 22 bëgg nañ 15 heures ñu ubbi stade bi parce que voilà mën nañ ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi ci région yi dinañ ñëw fii le 21 parce que dañuy def benn cant fii ni ñu koy defee Géejawaay en face euh, euh, marché Sam ñu def benn cant pour salgal Baye Karim Baye Fall yëpp war ko teewee te nit ñi nga xam ne dañuy jóge ci région yi parce que yaa gën a am habitude suñuy concert ñoom ñuy ñëw ay ay ba Bakel ba ba ba ba Saint-Louis ba Louga ba di Châtol xam nga Thiès ba voilà na ay secteur yoo xam déjà préparé seen bus pour ñëw bu ñëwee fii dinañ leen aménager nous appartement ñu nekk fa dalu ba jour concert ba 15 h bu ñu añee ba pare à jubali arène nationale ñu commencé def bi show au plus tard 18 heures ñu tëj stade bi ne guichet fermé affaire bi voilà quoi ticket ba nga 20 h man war naa sur scène au plus tard avant minuit ñu stade bi ku communication bu bëgg nañ xam ku ci mën nga ñu ñun tamit dañ pour public bi la défé concert bi té inshallah rabbi gëm nañ ni ak liggéey ñuy nekk nii euh, buñ ko buñ ko buñ suñu 15 heures bëgg stade 18 heures bëgg voilà stade de fest ba nga 20 heures au plus tard dina fekk ko blende sur scène balaa minuit gars

doon li ma doon wala ma nekk li ma nekk gannaaw yàlla géejawaay la et à chaque fois damay bëgg di remercier par personne mais à chaque fois ma ko defee damay gis ni damay juum te dina am nit ñoo xamante ni ñoo la gën a jege bon bro yi wax sax da nga leen di tëb de ce fait damay ñëpp ñi nga xamante ni peut-être yàgg nañ si kot Ngaaka Blindé wala yàgg nañ toog di ko ñaanal wala yàgg nañ toog seen xel di dem ci woon ñu jàpp sama liggéey fu ci waaye nekk maa lay jaajëfal di ñaan tamit yàlla yàlla yàlla fay la quoi bu baax a baax baax beneen message mooy peut-être bon dañu gën a gëm suñu bopp quoi ñun jeunesse bi à chaque fois si loolu laay misé dañu gën a gëm suñu bopp ku ci nekk ci li nga nekk nekk ci ni nga ci war a nekkee rek après yàlla dina la yàlla dina la dina la fekk si quoi parce que tey suñu dëkk muy banlieue bi c'est pas vraiment évident nit di ci génn di nekk benn légende wala nit di ci génn di nekk benn benn benn benn icône yombul mais boo gëmee sa bopp rek def li nga war a def parce que dama koy faral di wax ne Guédiawaye mën nga fa nekk. di nekk ci benn mbir nit ñi di la romb comme si lijjantiwuñ li ngay def boobu ñu ngi xool ba xam li ngay def gëm nga ko wala gëmoo ko mais bis bu ñu demee ba nga egg foo xamante ni gis na ni fi mu toll nii dañ ci war a jàpp bis bu ñu ci tegee loxo rek di nga xamante ni en fait Guédiawaye jug nañ comme Bale bi comme Sénégal tamit yëpp kaa comme ni waxee donc rendez-vous bi dama koy joxe le de juin ne ko gars yi bu pare nag Guédiawaye ñëw jàpp ci événement bi Ngaaka Blindé Bale bi ñëw taxawu Ngaaka Blindé Pikine Parcelles Kër Massar Rufisque fépp foo xamante ni en fait am na nit ñu fa nekk di di di di di di bëgg li nga xam ne leen di def damay lancer benn appel que nañu ñëw vingt 22 juin taxawu événement bi que rappeurs yi comme nekk Géejawaay waaye ñi nekkul foofu yëpp dama leen di ñaan ñu ñëw supporter événement bi te incha allah rabi dinañ ci gis loo xamante ne du ma ne musuñu ko gis de mais dina jafe pour ñu gisaat ko tamit ci événement événement hip hop quoi. loolu mooy message bi. donc ñuy remercier suñu invité tey donc ci Guédiawaye Info donc muy Ngaaka Blindé di événement au niveau de arène nationale bi le deux ñu ñaan ñëpp ñëw jàpp ci donc géej waay Info dina ci def euh, ay tànk jéego parce que lépp luy géej Guédiawaye ñun aussi dañ ci de duñ ci duñ ci duñ ci des ginnaaw donc ñu leen di dox dig dacooy ba beneen yoon restez connectés.